génn na benn teaser daal ñu koy jox moom fi ñu toll nii Mickey Thiek am lay préparé Mickey Thiek la tudd wala yi ñuy def booy génn album. mixtape mixtape déedéet du mixtape booy génn album bi showcase.

man Canabasse hair lover mais Canabasse man Cana man bëgg naa xam son album bi nu mu tudd parce que dafa bind ne mu bëgg rek doy mais son album bi euh, kii euh, titre album bi du loolu. hair lover du hair lover waaye déglu ma saa yi man dama déglu album bi saa yi Canabasse xam nga lan lay euh, promouvoir ci album bi sàq bi man toog ci di sàq mi kan ne yëy rek daa doyul di naan ndox ne naan rek.

Euh, fii ca Burkina Burkina la génn génn Burkina dem beneen beneen fee bu ay maa ngi fay lam bi waaye génn Burkina dem beneen studio bi moo ne woon ni Kaana il est ba pare booy xam nañ kuy Canabasse ba pare Canabasse réew génn album tuddee ko saa xami mbëggeel rek doyul saa xami xeer looba saa di yëy petit cola di yëy petit cola Canabasse yëy sa xel ci la non mais mu ngi jax fi ñu toll nii Ngaaka mu ne ne dafa doon dugg studio xam nga Ngaaka ku ko pic benn day bëgg génn pic la Ngaaka dafa dugg studio ndaka Ngaaka 300 la am. nee na du mbaale classe 300 la Ngaaka am dugg studio fi ñu toll daa reporté <laughs> album bi dafa doon génn mooy secret set version 2 bi. dafa acte deux bi daa waroon a génn mais trois son la am Ngaaka nekkate son yi mu doon way ay maay buuru Ndakaaroog ay maa tay maa puum Ndakaaroog yooyu yëpp ci album bi la waroon bokk mais comme ni ko génn ba ñëpp xam-xam. <laughs> bi ren man ah su ma bëggoon staff Ngaaka Blindé sans soo bi laay ko tuuti cent franc Ngaaka sans bi dafa soo ku génne mu ku wax mu wax ku kii album bi pareegul trois cent la trois cent ndeke coow li muy bëri yëpp ok Ngaaka ñu ngi lay xaar album bi heure secret set acte 2. ñu ngi koy xaar mais euh, ki nga xamni mom moy euh, le PCA euh, de la culture urbaine hein, président mm, Moustapha Dieng ñu ngi lay féliciter di la encourager di la souhaiter une très bonne continuation hip hop donc ñu jox ko li nga xam moy PCA bi ñu ngi koy béggee bu baax a baax di wax ni non Moustapha tu es le président de tous les rappeurs donc rappeurs yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw te yow ya nek sen kanam donc nekkal sen porteur de voix nekkal sen ambassadeur comme niñ ko tam di gisé ci yow donc ñu ngi waajal bu baax a baax a baax à rap Galsen euh, donc le 23 décembre bii bi ma ngay amee ca Dakar Arena loolu tamit ñu ngi koy préparé mais di ñaan yàlla euh, nit dof mën cee bokk nit dof ñëw assister euh, Karim Xurum Xaq ñëw assister su ma waxee loolu maa ngi ñaan yàlla ñu bàyyi leen fi nga xam ni fi ñu nekk di ko ñaan autorité yi ba ñu mën a dugaat parce que ci pop bi lañ leen gën a soxla rap Galsen forever ay ca yow ak lu bari gis naa leen ñu taf seen benn photo ne kii ñoom ñoo jël ndam li waaw ak lu bari xam nañ lu waay waxaat fii Ah, maluco.